jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan si Sénégal 7 TV Sénégal 7 point com ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm mbokk yi xam ngeen ne Sénégal 7 ba tey mu ngi euh, euh, euh, leen toppal li nga xam ne moom mooy baccalauréat session 2024 gannaaw ba ñu jugee Ndakaaru ñëw nañ tey fi nga xam ne mooy si diwaanu Kaolack fi nga xam ne moom mooy centre bac lycée Valdiodio Ndiaye bokk na si lycée yu gën a mag fii si Kaolack nangaan mbokk yi xam ngeen ne dañ leen toppal li nga xam ne moom mooy épreuve réaction candidat yi Euh, su ko defee ñoom i tamit ñu daal di ñuy wax ndaka la ñu gisee li nga xam ne moom mooy épreuve yi ñu fàttali leen rek tey jii moo nekk ñaareelu fan épreuve baccalauréat bi ndax euh, gannaaw nag démb si euh, première épreuve yi ñoom ndongo ba tey ñu ngi wëyal li nga xam ne moom mooy épreuve baccalauréat yi ñu dugg si biir tamit ngir mën a waxtaan ak chef de centre ki nga xam ne mooy monsieur le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye su ko defee tamit ñu daal di koy dénk si ñu lantinoor ñu waxtaanee naka la déroulement bi daal di demee fi nga xam moom mooy si baccalauréat bi Euh, ma fàttali leen maa ngi ànd ak Hamidou Sall si caméra bi ñu dikkaat ak yéen léegi-léegi Sénégal 7 TV. maa ngi tudd Bokar Diallo maa maa ngi jàngee Amith Kane. Amith Kane waaw. Ndiaye bii nga defee fii laa defee ah, maa ngi ziiri 14 14 15. waaw maa ngi ziiri 14 15. alors naka déroulement épreuve bac yi mooy ñaareelu fan bi noo ko gisee ku ah non pour l' instant moom ah, ah pour l' instant moom affaire bi moom tàng na trop affaire bi moom saf na moom comme ni nga ko fëggoon ak nu mu génnee moom franchement du franchement affaire moom daf ñoo bett quoi waaw dèjà da ngay da ngay yaakaar lii nga ñëw fekk lee affaire doo comprendre quoi donc sax am na ñoo am na ñoo xam ne sax ñu ngi naan sax à travers fuite yi quoi moo moom mooy waral moom mooy waral yenn changement épreuve yi yooyu noonu parfois doo comprendre da ngay ab ba. changement épreuve yi am quoi. waaw waaw voilà loolu loolu lañ jàpp nag jàpp nañ ne peut être xam naa fuite yu am ak yooyu noonu moo tax. changement épreuve yooyu noonu a moo tax mais peut-être épreuve yenn épreuve des nag mun naa mu am changement yooyu noonu mun naa mu xaw a tane mais yii moom dalagul xel de moom wax dëgg fa yàlla. Ah, ñu ngi def français français lañ doon def mais français moom ah <laughs> français trop français moom <laughs> xaw dafa am ay calcul de pièces man xaw nu fa demee noonu mais franchement moom yéeme na trop moom. waaw yéeme na trop moom yaakaaruñu ko woon nii moom. dissertation bi la wala bi dissertation bi la woon parce que commentaire bi commentaire moom mun naa ne moom dissertation moom lu mu lëj lëj mais moo xaw a moom moo xaw a tane moo xaw a tane dissertation moo xaw a tane commentaire bi. si dissertation bi mbaa sujet boobu yow jàngoon ko. non sujet waaw mais yàgg nañ ko def classe yàgg nañ ko exercer wu. roman la ci roman la mais juste dafa am dafa am dafa ne juste dafa nekkaale ci biir quoi donc moom moo ma doon pose moo ma doon pose problème moo doon tax après muy xaw difficile quoi. loolu ndax seen xel dal na si ñaari fan yi nga defa gum fi mu ne nii ah instant yi sa xel dal na. <laughs> non daal moom ah ah ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla waaw. bind nañ bind nañ ainsi daal ñu ngi toog moom di xaar daal di xaar got waaw di xaar got ainsi moom waaw ainsi vendredi la ñu pare incha allah bu soobee yàlla vendredi incha allah waaw incha allah. ok merci waaw. saa nii commencé nañ ko si bisimilahi rahmaani ñu ngi ñaan jeexale ko alhamdulilahi rahma rabbil alamin waaw saa yi nii moom ñoo ngi ñuy jox pour l' instant ñu ngi bind waaw pour l' instant daal affaire yi la demee daal quoi waaw. waaw kon ñun am ay élèves leen te te lu ñu xam moom dañuy ñëw ñun dañuy dañuy neuf mois yi dañuy jox classe ñu jàng bu ñëwee bu ñu joxe sujet boo xam ne mooy lu yàgg si travail bu génnee bu ñu si ñu xam rek la ñuy bind moo tax pour l' instant lu ñu la mën a wax ah jox nañu bind lu ñu xam jox leen. waaw lu des nu bàyyi ko si loxo yàlla boo xam waaw mooy loolu ndax bu ñoo demee bind ñëw na ne am yaakaar ñëw gis leneen mais luñ mën a xam daal mooy daal bind neen jox na leen bind jox ñu bind jox na leen daal non jamais jamais jamais man moom damaa jël lépp kon moo yore bàyyi ko loxo yàlla waaw l'essentiel lu ñu ma joxee daal man dinaa bind jox leen waaw lu des ma bàyyi ko si loxo yàlla yàlla motal lu des pour l'instant daal loolu laa taxawee mais stress moom pas moom pas espèce France bi ah si man moom wax dëgg yàlla moom xaw naa lu ma wax de xaw naa tane. waaw ndax parce que Roma moom bokkoon na lu may gënoon si su mbir yi moo tax ba mu ñëwee tey ñëw surprise ma man maa l'essentiel kon gars yi li wax rek correcteur bi ak affaire doo xam ne muy demee gis beneen côté waaw moo tax mooy pour l'instant daal moom bind naa daal jox naa dina na am kar waaw actuellement ak sa xarit yi nga xam ne yéenay ànd di defandoo épreuve waaw kon kon rek da ngay des fois da ngay nekk ay xarit yoo xam ne dañuy bind même dañuy bind lu baax sax wala des fois duñu am yaakaar ndax pression bak nu mu mel ak nu mbiri nu mu demee quoi waaw des fois daal affaire day xaw a compliqué da ngay nekk sa yenn xarit nga leen conseillé naan leen gëm nañ yàlla li des ngeen bàyyi si loxo yàlla daal bag ni muy jeexee daal waaw daal loolu noonu la demee quoi mooy loolu saa yi ngoon gi ñoo ngi def ñun L2 yi ñoo ngi def suñu matière dominante ak yaakaar naa ak L prime yi muy AG soir jour la ñu ñëw def nii saa si ngoon bi maa ñoom la ñu ñëw def nii waaw merci jërëjëf waaw jërëjëf. déroulement baccalauréat bi tey mooy fan bi nga xam ne def ngeen ñaari fan fi mu na ko épreuve yi moom neex na macha allah yuñ def yuñ jot a defagum daal neex na yombagum na su ñun. muy philo bi comme démb ak euh, suñ langue vivante bi nga jiital ak tey français bi. français bi noo bi moom neex ndax ñun roman nañ séntu woon te moo génn. moom la gënoon préparé. waaw fiction ak réalité. instant bi def. waaw. nooy dundee bac bi instant bii nii mbaa stressé woo rek. non non ndax boo stressé doo def lu baax. Mhm. merci. Euh, man maa ngi tudd Modou Mbaye. je suis un élève à lycée Valdiodio. candidat au baccalauréat. ngi série L. fa neex na moom neex na. ndax sujet yi ñu jox moom vraiment c'est très très abordable même waaw suñu xel daal mën nañu dalagul na ci sujet yi soog a jàll à travers philosophie bi ak euh, anglais bi ak euh, français ba tey huit bi yooyu moom neexagul na quoi suñu xel dalagul na. amoo si benn amoo si benn jafe-jafe fi li nga jot a def. non ñu jot def moom wax dëgg si yàlla gis naa sam bopp mais tamit on sait jamais quoi on sait jamais ndax parce que dese nañ bag moom mooy lool. à travers man fi may xalaate mooy si correcteur yi quoi surtout le correcteur yi man ci lay xalaat ndax dañuy ñëw peut-être mën nañoo baakale def lu leen neex genre man foofu laay tiite mais li ma bind moom am naa ci yaakaar si. tiit ak yooyu. non stress moom mënul ñàkk ndax man depuis tout ces neuf mois dama dama am stress mën naa dama am stress maa ngi jàng maa ngi jàng suba ngoon peut-être que ne benn jour mën na ñëw defar lépp mais benn jour mën na ñëw yàq lépp foofu moo tax stress foofu la nekk bu doon personnellement ñun ñun ñi nga xam ne ma koy dénoncer gars yi nag ñun ñi nga xam ne bu doon ñun ñooy def personnellement du ñu kii mais suñ parents yi ñu sonn ci ñun ñu ngi ñuy xaar mbokk yi ñu ngi ñuy xaar waa koñ ba lu ñu leen di wax genre yooyu loolu la ñuy xalaat quoi stress foofu la mais vraiment moom liñ liñ ñu jàng moom jox nañu te bind nañ tamit li ñu jox bind nañ delloo leen peut-être ne yàlla dina def ndam incha allah ah, ok merci beaucoup. Fatou Ndaw. Fatou Ndaw. candidat. laa kay. E. ban série. déroulement baccalauréat ci deux jours yi. ah ça de fi ñu gis ni moom c'est abordable épreuve ah ñu am yaakaar daal. mbaa seen yi saful rek <laughs> par rapport ak science yeeg yooyu ah tuuti rek. tuuti nag moom saf na tuuti rek mais ça jot a jàng jox waaw jox nañu luñ jot a jàng de matière scientifique yi waaw. matière mhm. non non non moom si subaa ah depuis démb ba tey moom ça xaw ma nag. tey suba gi matière ngeen mathématique. Mhm. épreuve mat bi. ah épreuve bi ça va de xawoon naa kii nag si début bi mais ça va. leen joxoon yooyu yëpp préparé woon nga ko. waaw waaw préparé nañ ñu joxoon moom ah, en fait kii yëpp église yëpp pare préparé woon nañ ko yëpp. waaw waaw jeexaloon nañ programme kay yëpp jeexal nañ programme matière yëpp mathématique SVT PC yëpp. ngeen di waaj a def ni AG. Ah, mhm. AG la ñuy def tey su ngoon ah tuuti rek. stress bi moom mënul ñàkk mais nag sa va ñoo ngi koy gérer daal. ok merci. jërëjëf ñu ngi ak monsieur le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye en même temps nekk chef centre euh, fi nga xam xëy moom mooy fii si lycée bi ma bàyyi ko mu nuyoo d' abord monsieur maa ngi nuyu. waaw euh, maa leen di nuyu Pape Diom ci seen ñëw bi. man nag maa ngi tudd Birame Faye nekk proviseur ci lycée bi nekk chef de centre aussi. centre boo xam ne ñetti jury ñoo fi nekk. ñetti jury. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord baccalauréat bi door na ndiki démb ñaari fan si weeru juillet bi si atum euh, tey mu nekk ñaareelu fanu épreuve yi en tant que euh, chef de centre euh, naka nga gisee déroulement épreuve yi. waaw déroulement épreuve yi ci ñaareelu fan bi ñu nekk. Mm-hmm. en tout cas dañuy sant yàlla. ndax amul benn rëq-rëq boo xam ne daal rencontre nañ ko. Mhm. boo xam ne xew na gàllankoor ni épreuve yi du demee mhm. fi mu ne nii daal moom lépp mu ngi jaar yoon mhm. ci sunu centre bi amul benn problème daal épreuve yaa ngi dem te président jury yi aussi tam vraiment amuñu benn jafe-jafe boo xam ne gis nañ ko bu mën a tax mu am ay rëq-rëq ñu ngi sant yàlla bu baax a baax daal ci loolu jot ngeen nemmee ko ay cas d'absence moo xam si ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo war a jogante te vraiment ñu waroon teer teewuñ xam nga chaque fois boo examen amee. Mhm. dina am ñoo xam ne dañuy am kalankoor duñ ñëw. c'est ndax centre suñu centre bi fi ne nii. Mhm. Euh, ci boo xoolee ci ñetti jury yi am nañ ci góor ñi cinq cent trente jigéen ñi six cent dix ñooñu nag absence yi euh, jigéen ñu ngi toll ci fukk ak ñett jigéen góor ñi toll ci ñaar fukk ak benn. Mhm. ñooñu moo ñoo xam ne daal moom vraiment ñëw boo xoolee lim bi daal moom. fanweer ak ñeent ñoo deful bac. Mhm. ci ñu ma wax ñoom ñoom ñëpp. d'accord bi baccalauréat bi dooree ba léegi ndax mun nañu jàpp gàllankoor wala rëq-rëq yoo xamante ni si côté incidence boo xam ne peut-être nemmeeku nañ ko si xam ne mooy si centre bi. waaw fii ci centre bi de moom comme ni ma la ko waxee rek dañ cee ah. sant yàlla. Mhm. waaye démb moom am nañ benn kaa boo xam ne. Mhm. vraiment daf ñoo xaw a jaaxal. benn xale bu jigéen boo xam ne daa jékki-jékki rek moom euh, daanu en syncope ñu yóbbu ko infirmerie. mais bi mu perdurer dañoo mujj obligé woo sapeur ñu ñëw jël ko yóbbu ko. Mhm. waaw gàllankoor boobu daal moom lañ. moom ngeen ci jot am rëq-rëq boobu moom lañ ci jot am daal. d' accord euh, proviseur sa jàngat si li nga xam ne moom mooy xew niki démb sa Euh, nouveau lycée de Kaolack foofu itam nekk centre en tant que chef de centre ñu nemmeeku fa cas boo xam ne nii si ay ndongo la ñu jël exclure lañ euh, li ko waral nag mooy seen téléphone portable yi nga euh, yóbbaale woon te si en règle dañ ko interdire ban jàngat nga si situation bi nga xamante ni am na ci ki dem waaw situation bi am nouveau lycée mhm. situation boo xam ne ñun ñëpp la metti te ñun la jaaxal ndax xëy na nu mu demee mhm. mën na demee noonu ci centre yëpp te bu nekkoon ci centre yëpp itam moom ni ñu ko defee noonu kon xëy na dinañ daan longu yu bëri itam waaye nag loolu ni ma ko gisee nekk na loo xam ne leçon la ci ñëpp ndax xam naa tey jii boo demoon ci centre yi centre boo mën a dem tey ji moom xam naa ndongo du ñu yóbbu portable waaye nag portable moom daa nekk loo xam ne dañoo yàgg di ko xeex ci école yi amul benn école boo xam ne te xeexul portable yi parce que portable yi xale yi dañ koy utiliser di ci tricher mhm. surtout bu ñu amee devoir wala bu ñu amee composition. moo tax nag ñun pour ñu éviter loolu. dañ leen di tere portable bi ci biir école bi. ma yaakaar ne nag moom lii nga xam ne moo dal xale yi. xëy na nekk na erreur bu mag ci ñoom waaye nekk na erreur bara yi. man fii boo demoon bureau sanceur mm. la nga fay fekk ci jugu portable yoo xam ne année bii année yii passé lañ ko doon nangu. bëri na trop. waaye nag li suñu jafe-jafe ci xeexum portable yooyu mhm. mooy tey buñ jàppee benn portable mhm. xale bi doon ko utiliser soit mu ciy xool heure wala mu ciy tricher wala mu ciy def leneen ñun mhm. buñ ko gisee dañ ko jàpp wala muy sone buñ ko jëlee nag indi ko fii dañuy dañ leen jox convocation pour ñu woo seen parent ñu ñëw jël si ko mais nag la nga xam ne moo ñu gën a metti ci loolu mooy parent boo woo mu jël si portable bu ëllëgee am na parent yoo xam ne day bu ëllëgee nga gisaat xale bi mu yor portable bi. Hmm. damaa xamul nag lan la ñuy wax ak ñoom ba joxaat leen portable mi boo tax xale yi am nañ ci part de responsabilité bu rëy waaye parents yi itam am nañ part de responsabilité. Hmm. parce que yaakaar naa ne lépp li nga xam ne mooy euh, yoru portable boo gisee convocation xale yi sax ci gannaaw dañ koo wax dañ leen ne portable dañ koo tere ci centre bi donc ñoom xale yi xam nañ ko. parent yi itam moom xam naa ne réere wu ñu mbir ne portable aussi dañ koy tere école ak examen mais nag xëy na nag manque de responsabilité parents yi moo tax ñu jotuñu jouer rôle wax xale yi ñu jël portable yi bàyyi ko ca kër ga mais néanmoins am na parents yu responsable yoo xam ne seen doom en tout cas moom du ñu yóbbu portable école loolu man gis naa ko mais nag responsa irresponsabilité parents yi bëri na to loolu mbir mi nag aussi moom daa jéggi dayoo parce que nga xëy examen moom saa moom jël sa portable ne la demal demal toggi vraiment lu metti la hmm. metti nañu metti na parents yi metti na xale yi parce que man fii ma lay waxee sax ñun am nañ ci ay élèves ah. parce que boo xoolee lycée Valdiodio rëy na rëyaay boo xam ne élèves yi ak option yu bëri yi ak langue yu bëri yi dañ leen a tas ci biir jury Kaolack yi hmm. donc foofu am nañu fa ay élèves ñaata élèves ngeen si lim bon ci lim moom xaw ma exactement fi mu ne nii moom ñaata élèves lañ ci am. bon mais en tout cas signifié nañu ne moom am na suñuy élèves yu ci nekk. Hmm. d'ailleurs ojo euh, bi nga xam ne moom mooy daw ci réseaux sociaux yi sax am na ñoo xam ne xamee nañ ci ay élèves. Hmm. waaw fi mu ne nii defaguñu situation boo xam moom ñaata élèves lañ fa am. Hmm. mais am nañ ci élèves. Ah. mais dama ne daal moom loolu daal nekk na loo xam ne. leçon la boo xam ne ñun jàngal nañ leen ko ba ñu boobu ñu mokkal mais nag. xëy na yàlla moo dogal moom erreur boobu dal leen hmm. waaw d'accord collectif parents d'élèves yi ñoom ñu ngi dox jekk ngir ñaan li nga xam ne moom mooy situation bi loolu yi tamit naka nga ko gisee waaw collectif parents d'élèves yi loolu moo leen war hmm. parce que même ci école yi sax parents yi bu ñu tëlee sax collectif parents d'élèves yi ñooy jóg jéem di baalu hmm. xam nga sa doom bu tooñee toujours yow yaay jóg di baalo même boo xamee ne sax moom moo tooñ li la war mooy nga baalu donc ñoom seen rôle la ñuy doxal ngir vraiment ñu mën a baal xale yi parce que bu ñu leen baalul vraiment dina nekk loo xam ne moom dina metti trop ci ñoom. d'accord jërëjëf. Mm-hmm. Ah.